salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin absa wa safar salaatu dañuy dañ naan bisimilahi rahmaani rahim waa di sant sëñ Mbàkke ndax ku lay woo ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa kooku dalaa bëgg a dimbali te wax dëgg yàlla dañ koy sant ndax sëriñ bi moom moom nañ koy bàyyee sëñ Mbàkke daanaka boo xoolee màggal gi fu waay bàyyi fu nekk waaye nga fay bàyyi ko di ñëw Touba kon tey jii bëgg liggéey sëriñ bi tamit taxul nga liggéey sëriñ bi soo amee ku mel ne sëñ Mbàkke muy liggéey sëriñ bi di yëkkati njaqam di ko def ci sëriñ bi kon bu la woowee ti liggéeyu sëriñ bi kon kooku da nga ko war a sant dañ ko war a sant màggal gi nag moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ñu ñëpp kontaan nañ ñu ñëpp kontaan nañ ndax daanaka lay séntu ci màggal gi sëriñ bi dimbali nañu ba yàlla nañ tasanteeg moom ndax euh, ñu bëri ñu ngi màggal si waaye xëy na amaana taluñu ko màggal dinañ waaye taluñu ko kon bu la sëriñ Tuubaa dimbalee nga bokk ci ñuy màggal si màggal gu neex ba pare bokk ci tal ko loolu tawféex la wax dëgg yàlla maa ngi sant waa kër gi gan yi nekk fi yëpp ñu ngi sant waa kër gi ndax waa kër gi mënuñu leen a fay ndax ñoom danoo bàyyi seen lépp bàyyi nañ seen i lal bàyyi nañ seeni lépp ngir gan kon ñun dañ leen di bàyyi ak Serigne nga xam ne moom moo am ak fay. waaw gis nga ma wàññi moom daanaka Serigne bi dimbali nañu ba tax taw féexu ndax nekk si waañu màggal ku si ne xam na ni. tàng na metti na waaye duñ ko yëg ndax euh, dinoo bàyyi suñu bopp suñ lépp Serigne Touba moo tax daanaka am na yu bëri yoo xam te ne daanaka mën nañu yëguñu ko daal ndax ambiance bi ak jàppalante gi yëpp am na ci waañ wi ndax bu fekkoon kenn def lépp rek dina metti trop waaye ñëppay xàccandoo ñëppay dóorandoo ba ci maire yi ba ci xale yi gën a tuuti bàyyiwuñ ñu ngi ko mi ngi jàpp daal loolu moom tawféex la ndax ndiki moom boo nekkee ak say rakk bokk ak say yaay booy ñoom ñëpp ñu nangu kooku da nga leen sant rek da leen sant ah, ren gi moom mbir sëñ Tuubaa moo amul tànk ginnaaw sëriñ bi la ay mbiram doxee noonu saa yoo séentoo ren nga ne ren da bëri na nit bu déwénee moo yëpp kooku mbiru sëriñ Tuubaa la. dañuy ñaan yàlla yàlla suñu dimbale diñ kàttanal ba ñuy fekkee màggal gi di fekkee chaque année màggal gi di ko ànd ak suñu kilifa gi sëñ Mbàkke ndax de wax dëgg yàlla de ñu daal sëriñ bi lañ koy bàyyi rek ndax bu ko neexoon mu ni man maay liggéeyal sëriñ bi waaye nag daani ñëw leen ngeen jariñu ndax ki lay woo si liggéeyub sëriñ Touba dalaa bëgg nga jariñu te moom wax dëgg yàlla exemple exemplaire la ci yoonu murit tamit sëriñ bi rek a ko ñor te loolu lañ gis si moom tamit waaw sëriñ bi rek a ko ñor yitteem lépp sëriñ bi la waaw kon day ñaan yàlla saa su ne rek ñuy roy ci moom si yoonu sëriñ bi ndax kuy roy ci moom di nga roy ci loo xam te ni di nga méngoog bëgg-bëggu sëriñ bi ndax ñun ay taalibe lañ rek ay taalibe rek da saa nekk suñ magom taalibe suñ kilifa ci yoonu sëriñ Touba dañ koy roy te loolu mi ngi ci moom saatu nekk rek loolu mi ngi ci moom dañ koy gis ci moom ba tax na ci tànk yooyu lañ topp topp ci ginnaawam lu mu ñu sant ak lu mu ñu santul ak lépp luñ mën ñoo ngi ci kon dañ koy sant rek. waaw macha allah ginnaaw bi ñu santee yàlla jullu ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci Mouhamed sant sëñ Touba bu baax a baax moom mi ñu fi indi waa li ñu naan uh, màggal gi nag ñu bëri doon nañ xalaat Covid 19 bi mais macha allah li ñu naan uh, uh, vraiment jël nañ les mesures barrières yi nga xamante ni moom la ñu waroon a def muy organisation bi def ko ci anam yoo xam ne dafay gën a set. uti teg suñuy eau de javel suñuy gel antiseptique donc suñuy masque et tout ba pare wàllum euh, waañ bi vraiment ñu ko doon suivre ak anam boo xamante ni comme dañ ne feebar bi Covid 19 la ñu nekk euh, defal ko ci anam yoo xam ne daal ku ñëw lekk bi mujj na ay te vraiment sell na en plus de saa ku ci nekk da nga yoroon tamit ñun ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre. organisation bi dañu yoroon suñuy petit modèle lu mel ni comme gel bi nii doon ko doxantoo fu ñu toll di raxasoo ak saabu yi en plus di ko utiliser donc yaakaaroon nañ ab feebar bi màggal gi nit ñi dinañ néew mais gëm naa ne jamono ji màggalu bu ren macha allah. li ñu naan sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am mbooloo mi dafa gën a yokk parce que lu mel ni sëñ Xaadim jóge ba France ngir màggal gi fii man maa ngi dëkk ba Thiès waa dakaar yaa ngi fii waa Kaolack waa Diourbel waa Ziguinchor ñëpp a ngi fi ñëpp a teew donc mën nañ ne mbooloo ren dafa gën a yokk nañ mesure barrière yi en plus euh, masque yi fu fuñ toll ñu ngi ko doon takk ba pare lekk bi tamit sell na ba pare ku ci jéen nit boo ñëwee teg nañ fi ay bërigo yoo xamante ni boo ñëwee da ngay raxasu ba set ak saabu bi door di dugg te balaa nga dugg tamit am nañ ay éléments yoo xam ne ñoo lay jox nga def gel bi par mesure de précaution. li ñu teg nag euh, dañu am sunu benn groupe boo xamante ni ñoom ñoo yor wàllu organisation boobu maanaam ñoom ku ci nekk ñoom ñooy yaay faal yi ak baay faal yi ñoom dinañ taxaw ci bunt bi dinañ yor mouchoir yi dinañ yor gel yi. ba pare eau javel bi ak bërigo yi mën nañ ne dañ ko éparpiller partout ba nga xam ne fu waay mën a duggit ci kër gi di nga ci mën a jot su ko defee feebar bi amaana du egsi ah li ma naan sëñ tuubaa moom tànki kanam la am rek màggalu ren booy seet ak mbégte bi macha allah màggalu ren moo gën a alaadaw me kë bu daaw feebar bi gars yi sentiruñ ko sax ndax sëñ Touba moom bu wootee amaana jàmbaaru sëñ Touba yi ak euh, taalibe sëñ Touba yi ñoom boo leen doon euh, wax sax ka ni feebar a ngi fii duñ ko gis mais lépp tamit def nañ ko par mesure de précaution respecté nañ barrières yi ndax boo demee ca jumaa ba yaa ngi gis ñoom ñëpp ñu ngi takk masque ba pare ñu ngi leen di takkuloo masque ñu ngi utiliser gel mausolée yi fooy dugg fooy ziar fu nekk gaa yaa ngi fa taxaw donc mën naa ne bu leen neexoon ne dañuy def mbooloo sans pour autant que ñu respecter li li li li yi wax mais vraiment gis naa ne respecté nañ ko te mbooloo ren bi ci la gën a yokk di sant euh, mboole euh, taalibe bu ñëw ziyaas fii parce que nag moom tey jii bu ko neexoon ñu ni euh, ñun ay jàmbur lañ fi mais ñun ñi nga xam ne ñoo jóge dëkk ak dëkk moom mu jóge ba France amaana ñun ñoo leen ëppale ci kër gi ndax ñooy dogal ñun ñooy def ñun ñooy nas ñun ñooy nocc donc kon moom amuñu fayam ah di ko ñaanal mu bokk ci milliardaire Ahmadou Bamba yi di ko ñaanal waa kër gi yëpp yàlla defar leen tawféex ak tey taysir làkk leen tamit ba fu làkk eggul di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm de passage tamit di leen ñaanal laale jàmm bu baax. ñu ngi ko dund ci contexte bi ak euh, magal ko ci ni nga xam ne ni lañu ko docteur yi digale ak sëriñ bi ku ne xam na ne murid moom ndigal rek bu fekkoon sax docteur te sëriñ bi rek digal ñu ko ñun dañ koy def waaw bi ko bi ko docteur diglee sëriñ bi confirmé ko murid yëpp def nañ ko kon a gis nee na nit ñi respecté nañ ko takk nañ masque yi te murid yi tamit nee nañ wane nañ seenu njàmbaarte ak seen Pastef ndax wane nañ na mën nañoo màggal ak euh, fi jamono ji ni contexte bi toll te mbas mi suñu borom musal ñu ci te kon xam na ne sëñ bi moom amul comme ni ko soxna si waxee léegi rek amul tànk gannaaw tànk kanam laa te tayam ju ne day gàccal ëllëgam te màggal gi wane na ko te magal gi ko xam ne xam na dara ci histoire fi mu tàmbalee woon ci loo xam ne sëriñ bi mi ngi ko tàmbalee woon ci am aw bëy ba yooyu ñu wecc ko ko defoon comme xar ba tey ji liñ ci rey ay nage nag ak i gileem ak mbooloo mi nga xam ne ñu ngi fi daje waaw ko gis daal xam ne sëriñ moom amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am. murid yi li moom ci njàngalem Serigne Touba rek lañ ko def muy organisation boo xam ne bu mucc ci ayib la te Serigne Touba képp koo xam ne am njàngaleem am na ci kilifa yuy adduna yi seede ci sëñ ne bu Afrique yëpp sukkandiku woon ci njàngalem Serigne Touba Afrique passé na fii bu yàgg te ko gis mouridisme ak lim réalisé te moom tarixa la boo xam ne bi mu juddoo yàggul mën nañoo citer lenn ci Touba gii rek dëkk la boo xam ne amagul. Euh, téeméeri atam daanaka day door a mat ku gis Tuubaa ni nga xam ne noonu la mel ci modèle bi njàngalem Sëriñ Tuubaa rek ci lañ sukkandiku ba defal ba mel nii kon mouridisme moom wane na exemple mu mel ne bu ci ñëpp sukkandikoo sukkandiku ci njàngalem Sëriñ Tuubaa lépp luñ bëgg a réaliser danañ ko def ndax am nañ ñoo xam ne mat nañ ñu mel ne Sëriñ Tuubaa ay référence lañ waaw ñun Afrique daal war ñoo jéggaane ay référence waa kàddu yi daal kàddu rek la ñu ngi sant ñëpp di sant Sëriñ Xaay moom ci taxawaay bi ku gis na ne màggal gi am na ci taxawaay bu am solo ba ñëpp ñu ngi ko koy seereel euh, mu mel ne tamit li nga xam ne moom la borom dëkk bi bëgg ci màggal gi organisation ak li nga xam ne moom la sëriñ bi digle woon respecté nañ ko fii ci kër gi bu baax ku fi ñëw rek da nga gis ne màggal nañ waaye màggal ci màggal goo xam ne dañoo respecté ndigali sëriñ bi ak ndigali waa kër docteur mu mel ne sëriñ Xaadim taxaw na njaboot gi ñëpp tamit ñëpp a ngi koy sant di ko gërëm te di ko màggal gi moom am na ci taxawaay bu rëy rëy waaye sëriñ bi waxoon na ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la sama bis bii bu ñëwatee nag ñu sant sama borom te nee na woon ñaar ñi buñ bokkee kii fonk màggal gi kii fonku ko kii ko fonk du dañ di rawee kii ki ko fonkul lu ñëpp di teg seen bët ba adduna di tukki waaw kon daal murid ñun amuñu lu dul màggal ñu ngi lay fay bu baax di nuyu di sargal ak am mbégte bu baax a baax ci bis bi nga xamee ne moom lañ fi dajee tey muy bisu 18 safar ah di it bis boo xamee ne context boo xamee ne bu kiimaane la wax dëgg yàlla amoon nañ ci ay njàqare amoon nañ ci asi ay xalaat waaye nag yàlla def na lépp rek ci ndimbalul Serigne Touba ak it wax dëgg participation ak apport bi nga xamee ne autorités sénégalais yi son en particulier son excellence président Macky Sall taxaw na ko ci ba yàlla def na màggal gi comme ni ko soxna yi waxee léegi def nañ ko niñ ko bëggee ba yàlla def na dox ga amatuñ ci lenn loo xam ne jàpp nañ ne mën na cee indi ay jafe-jafe yiñ ci doon tiit. lool de xam naa kenn ku ne xam na ne contexte bi ñu toll diggante mois de mars ba léegi wax dëgg yàlla am di ne ay jafe-jafe ci ñu mën a voyager ndax comme ni ngeen ko xamee bari na ci ñoo xam ne daanañ fi ñëw di fi ñëw ay yoon yoon ci at mi ci kastu rajo bi yeeg tëbaski yeeg korité yi ah, yàlla def na mm, mu fekkoon leen Europe ah loolu taxoon na ba euh, ñu euh, amoon ay xalaatit ndax comme nuñ koy waxee même l'islam da koy dégle waaye autorité sanitaire dañ koy dégle lu mel noonu fu la fekk rek da ngaa war a toog ba xam mm, fu mu tàmbalee ak fu mu yem pour boo demee mën na ko euh, bañ bañ a lori nit loolu moo taxoon comme ni nga ko xamee ah ñu gàttaloon suñu tànk ci di jëm si fii ci Touba wax dëgg yàlla euh, jàpp naa ne am na ay weer yoo xamee ne ñoo nga toog foofe ci Europe rek pour fexe ba euh, mbas mi moom du tasaaroo bi yàlla defee màggal gi ñëw te am ci ndigal nag te amul lu may màggal gi nag wax dëgg yàlla jël nañu ay matukaay pour mën a jóge France ñëw ba fii pour màggal si te it màggal ko ci anam yi nga xam ne noonu la ko soxnay waxoon mooy jël suñuy matu ay comme ni ngeen ko gisee ñu jël ay masque jël ay gel am gorisation eau de sable bi saabu ndox mi wax dëgg yàlla yit am na sax comme niñ koy waxee ndax set amoo ndox moom dana jafe waaye nag yàlla def na jafe-jafe yi nga xamee ne kenn ku ne xam na ne ren am na ci yoo xam ne jafe-jafe en particulier par rapport ak nawet bi mais aussi par rapport ak Euh, defaraat yi nga xamee ne toll woon nañ ci di ko def waaye jafe-jafe moom nañu xam ne du doon loo xamee ne bëgg-bëgg la waaye nag dëkk bu mel ne Touba di màgg fu mu toll mais aussi benn bis lu mat ay cinquante euh, mën naa na cinquante fois plus que li fi dëkk di fi dajee nga xam ne foo xam ne plus de trois millions de personnes danañ fi ñëw dajee fi ci benn bis ah wax dëgg yàlla mën nañ ne structure yi nga xamee ne ak installation yi nga xamee ne moo war a yor ndox mi ak forage yi dana war a am surcharge rawatina bu ñu tolloo ci jamonoy defaraat wala loolu it sentir gi ñu ko war a sentir wax dëgg yàlla mën naa ne am na allègement par rapport ak matuwaay yi nga xamee ne euh, autorité sénégal yi jëloon nañ ko en particulier son excellence le président Macky Sall ak bëgg goo xamee ne kenn ku ne xam na ko ci ni mu bëgg dëkk bi ak yéene ji mu am ci taalibe yi ak it wax dëgg yàlla jàppale goo xam ne mu ngi koy jàppale wax dëgg sëriñ Mountakha ci dëkk bi ndax yéene sëñ Mountakha du lu may Touba yi bokk ci dëkk yi nga xam ne moo gën a euh, mucc ayib mais aussi bokk ci dëkk yi nga xam ne taalibe yi dañ fiy dëkk ci anam woo xamee ne anam yu yu yu yu leen am ndimbal lay doon ci wàllu wépp nag wàllu woo xamee ne éducation la santé la wala sécurité la sanitaire wala lu mën di doon yàlla def na mu ngi ci eh, joxe ay ndigal di ci soññ taalibe yi ah autorité Sénégal yi jël ci seen matuwaay ba tax na wax yàlla bi màggal gi ñëwee jafe-jafe ndox yi ci amoon nag ñu ngi ci doon jël ay sarche ba ñu ngeen koy gisee camion citerne yi ñu ngi doon wër fépp rek du may ndox nit ñi ndox yàlla def na xëy na sax peut-être ñëpp jotiwuñ ci waaye nag am nañu mm, maanaam daal euh, kontaan ak mbégte ci wax dëgg yàlla yéen yi nga xam ne autorisé amoon nañ ko ci bien que xëy na demul fépp baa ñëpp jotiwuñ ci waaye nag seen yéen moom moo doon ñëpp jot ci kon ñu ngi leen ci sant bu baax en particulier nag monsieur le préfet moom Sall mi nga xamee ne wax dëgg yàlla gannaaw bi nga xamee ne dañ koo jox euh, service nag pour mu féete Touba mu doon ak taalibe nag nuy gis fu nu toll rek yéeneem ci dëkk bi di gisit ab taxawaayam ci li nga xamee ne chaque fois su taalibe yi soxlaa rek ni mu ciy taxawee gannaaw ba mu nekkee maanaam ku ñu jox euh, ndomba tànk mais aussi mu doon ab taalibe te dara ñoru ko lu mooy dëkk bi kon préfet Sall noo koy sant bu baax ak équipe bi nga xam ne moom la àndal liggéey bi ba ca gouverneur ba ca ministère ba ca président de la ñoom ñëpp ñu ngi leen sant xam naa bu fekkoon ne tey am nañ lenn luñ ci mën a wax rek mooy dañuy doole sant suñ Tuubaa ndax kenn ku ne xam na ne màggal gi ren nii nu ko doxalee. wax dëgg yàlla mënoon na noo am yaakaar ci ne sax xëy na dana jafe nu doxale ko nii waaye nag ndimbalu Sëñ Tuubaa ak ndimbalu autorité dugg na ci ba lépp loo xam ne bëggoon nañ ko ci rek yàlla defal na nañu ko ci mucc yi ci anam yu mucc ayib ba tax na ñu ngi leen di sant bu baax di sant nag soxna yi ak ñi nga xamee ne ñu ngi jóge ba feneen ci dëkk bu mën di doon soxna si tudd na ko léegi fépp ci Sénégal ni dafiy ñëw di màggal si ci kër gi ñuy ànd di sant la Sëriñ di ko gën a am mbégte rek ci kenn ku ne ci ñoom waxtu wi yàlla sàkk ñu ñëw fi rek ni ñu fiy nekke rawatina ren it niñ leen ko gën a soññate waate ñu dimbali ni ci ba lépp dox ci ni mu ko bëggee amul benn côté boo xamee ne am nañ ci lu luñ doon liñ ci doon tiit yoo xam ne gis nañ ko ci lépp yéwé na ni ci war a yéwé ñu ngi leen di sant baax yéen ñëpp di leen gërëm di wax kon yàlla na nu yàlla defal ban téewe ko ay déwéni déwén te it buñ ko teewee ak jàmm yàlla na yàlla def lii nga xamee ne moom moo fi nekk